na ñoŋal migration interrégionale ak main d'œuvre bu soxal développement local yu réewum Afrique de l'Ouest nekk nag yiite bu mujjee nag antu ak nag benn accord bi nga xamante ne agence italienne bu yor wàllum coopération ak développement à organisation international ngir migration yi signé nañ ko nag tey ji ci suba mbëbët bi moo di gën a may ndaw yi ñi am li ñu duppee mobilité légale naka noonu ñi xam yoon ngir ut liggéey. Nous sommes que euh, offrir des opportunités de, de travail dignes, offrir des qualifications professionnelles aux jeunes, euh, offre certainement des opportunités pour une, une donc euh, faire face euh, aux causes profondes de migration. Reconnaissant que plus de Le projet se penchera sur cette dimension importante pour développer des approches et un soutien adapté au contexte pour appuyer les gouvernements à capitaliser le potentiel économique des échanges intra mim réew Guinée Guinée Bissau naka noonu Gambie moo di nag ñeenti réew yu sous région yi nga xamante ne projet bi toll ci lu ëpp ñaari milliards ci suñuy koppar nag yëkkati na ko mu di nag tànneef boo xamante ne représentant yu réew yi le ñàkkuñu di ko rafetlu bu baax. donc projet bii nga xam ne dafa ñëw tey pour gën a jàppale xale yi ñu am liggéey mun a toog seen réew euh, bokk si ñuy jëmal seen réew kanam nekk na aussi projet boo xamante ne nii lu ñu amal njëriñ la lool. ci bile partenariat bu yees ci diggante ay AIS ak OIM jàpp nañ ne rek dina mun a dakkal nu mu gën a gaawee phénomène yi ci mel ni travail forcé esclavage moderne ak traite yu doomu aadama yi daqal fi itam liggéey yu métti yi ñuy tekk xale yi loole ci diiru ñaari at méngoo ak 2025